jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci géejawaay gox bi ñu nekk xam nañ ne naam goxu làmb la waaye dañ fi seet si champion boo xamante ne ndaanaan bu mag la. bari na ci combat bi nga xamante ne àdduna bépp ñu ngi koy xaar moom ndaanaan boobu mu ngi ci préparation bi dem na États-Unis waaj ñëw. ñu arrêté li nga xamante ni mooy mbirub làmb mu doon loo xamante ni métti na képp ku bokk ci njabootu làmb dañ koy seet ci biir waxtaan ak moom champion bi nag duñ leen ko wax waaye Adama dañuy dugg ci biir xool champion boobu mooy kan kaay. naka la lépp jàmm kay am jàmm bëgg naa la. du dëkk bi waaw nii rek di ay ci kawam ñoo ci di wàcc. ngeen di njaay. waaw bi jox ngi saar gaay la yaa ngi am waaj. le grand champion. naka la. maam jàmm gaa seen publicité yow loo def. ah jaan <laughs> sama gars yi kon gis ngeen invité baa ngi noonu Adama ñu samp dóor waxtaan. ay ca bisimilah. jërëjëf mbokk yi kon gis ngeen suñu invité mu ngi noonu muy guy gi naam bi muy dugg si ci làmb am na loo xamante ni moom moo ko indiloon boppam mu nekkoon eh, guy gi nga xamante ni ñëpp noo mënti tool bu la jàppee ñëpp xam nañ ni da ngay say mbokk dañuy ñibbi ndax borom simpi dem na bu mujj gi bu njëkk da daan wax naan euh, Yékini mu baal ma waaye su ma ko jàppee mu jóg. loolu nag doonoon na loo xamante ni gëm-gëmam la waaye def na ko ñu baree bari gannaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi guy gi maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. jili maa ngi lay fay di wax ni auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ban sant yàlla jullu ci san sama ñaari waajur maa ngi nuyu sama sëriñ Seya seek borom digal di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ak wér nuyu sama xalifa général Baye Seck di ñaanal sama xalifa général euh, Baye Abdourahim Seck yàlla na ko yàlla yóbbu ajana di ñaanal maam Cheikh ma Tidiane yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana ma di nuyu waa Laayeen yëpp di leen jaale di nuyu waa Saleen waa Louga di jaale askan bi yëpp nuy sama yaa Wara Sarr suma grand frère Nas di nuyu vraiment ñi nga xam ne ni ñoo nekk suma gaale ku ci mel ni bu Thiès John Sina Pape Talib suma Talib grand frère suma Modou grand frère suma grand frère Malal Pape Ndoy xam nga di nuyu Père Mansour waa koñ bi yëpp ak euh, Lamine Niass Marie bàyyi ma kenn di nuyu suma benn grand Tafa Napoli xam nga. depuis Italie mbay Napoli bàyyi ma kenn daal vraiment di nuyu waa Sénégal gi yëpp axlu lamb nag laay gën a nuyu parce que tamit vraiment ñu ñoo gën a sonn ci li am nii te it euh, di ko dund waaw di nuyu sama benn euh, sama benn grand ku ci wax euh, Mamadou Yaaya baax ku baax fitil maire wax na nimsaat vraiment muy ku baax ku bëgg ku ku bëgg goxam ñu xam ci dara mu bëgg maire bi nag di ci liggéey di jàppal nit avant loolu kon defe bu taxee bëgg maire bi tey moog Wari Sarr bokkuñu parti dinañ def le tout pour jàppale ko mu jël meer bi quoi vraiment nit ku baax la. waaw man noonu lay dundee parce que lu ma gis ci moom la ma koy def ñun noonu lañu ñu yore ku la defal lu baax rek vraiment da koy wax te mi ngi seq ñun ay teraanga seq ak waa koñ bi ay teraanga bu événement ñëwee Tabaski Korité lépp feebar yi ordonnance këram dañ ko rang vraiment mënu ma ni denc na dara kontam ngir nit ñi kon defe naa ko bu bëggee maire bi Mamadou ba dinañ def le tout incha allah taxaw ci ba jox ko te yàlla dina ko def di nuyu tamit ku ñuy wax Sila. Sila na Naba Diagne vraiment borom naa TV maire Yoff ku baax la Cheikh Gueye moom boolante moom fan yi barki démb la ñu xamante mais nit ku disponible la. nit ku oyof nit ku bëgg goxam nit ku bëgg nit ku responsable fekke na ma taxaw mu kelesone ma ne ki kelesone kan la woo ma ne ma xam nga ma ma ne ko non mi ne ma mun la man la ma eh, wa nga dëgg pourtant léegi la fi seex taxaw ñu waxtaan. mais ci biir waxtaan bi rek xam naa ci moom grandeur koo xam ne ma xam ne kii kilifa la te su ma la nit kilifa la da xam ne kilifa la man dara fokk ma. waaw muy vraiment Silla maire Yoff na bu Diagne borom naa TV ñu ko nuyu bu baax nag à trace de Jili Wasaare di xaar ba ci karam incha allah question réponse xam naa maag Jili day gàtt bu tuuti rek nga xam naa mënul yomb quoi. <laughs> mu yomb guy gi mais guy gi actuellement ci ci Covid bi bi mu ñëwee ñu arrêté activité yu bari ci wàllu làmb tey boo doon xayma ñaata million nga ci perte ndax guy gi combat bi bi mu ñëwee dem nga États-Unis entraîné ji ñëwaat gis nga ni mu demee ñu tëj yëpp rawatina ñu tëj làmb sax laay wax ndax yëpp a ngi dox. làmb dong moo doxul boo ma doon xaymaal tey li nga perte ci million ñaata la. waaw ji li buñ ci nekkee di wax day mel ni pandémie bi liñ ci wax ñoruñu ji li nañ am benn adversaire rek ba pandémie bi dem mën nañ am benn adversaire ñun ñëpp mbër mi politicien bi boxe boxeur bi karateka bi footballeur bi ñun ñëpp nañ am benn adversaire rek ba bi dem mais man xam naa nas xam na maawo xam na ma xam na ñi may ñaanal xam nañ ay millions laa def ci combat bi. ñàkk ci ay millions jóge États-Unis na ba feebar feebaraat boo mi ngi may dégg sama coach maa ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu waa unis bu baax Ndioy Cuus Yambu Ndiaye mama mama Debel Laay Ndiaye xam nga wëcc képp ku nekk États-Unis di ñu bëggee ñu ngi lay nuyu nuyu sama sama coach yi ñoom joo ñoom ñëpp maa leen nuyu xam nañ boo xam ne li bu baax a baax ñu ñàkk ci xaalis bu bëri nag. bu mu ci à peu près. ci ñaata lay toll millions yi. non bari na barke yàlla bari. mat na 15 millions. yow jiili yow jiili da nga ñibbi de waaye 15 millions mel ni kuy ndekki jiili xaalis def jiili ndax xaalis laa def ëpp na ko xaalis def sama ñaar dem États-Unis xaalis la ñaari dem États-Unis xaalis la seere yàlla ñaar dem États-Unis rek xaalis la. kon ci xayma mën naa ni guy gi perte na lu ma 35 millions jëm kaw. waaw perte naa perte naa xaalis daal jiili mais. na 35 millions jëm kaw xam nga ma ne loolu. dafa am yoo xam sax dañuy xayma rek. parce que combat bi ji dafa am fu ñu tolloon daal mais nañ bàyyi yooyu de wax de wax pandémie bi rek ba mu dem man fi mu toll nii maa ngi ci ginnaaw état bi ak ki xam ne bëgg nga pandémie bi jóge fi man maa ngi sa ginnaaw. porteur de voilà la sama làmmiñ bi laa am ak benn zel bi may jox ak benn masque bi ak wax leen ñu moytu rek laa am am na ñoo man dañ maa bëgg te yàlla tax su ma leen waxee def leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi. waaw nañ fexe ba feebar bi jóge fi rek li des bis buñ toogee boo demee combat lii di nga xam ne man mii maa ngi ci ci la ñuy doog a wax ak nangam mais pandémie moom na dem rek ànd bi bi na dem guy gi ñu dëkk ci banlieue yow banlieue nga dëkk man banlieue laa dëkk waa banlieue di jànkonteel lu metti muy ndox mi mbënn bi nga gis maire yu bëree bëri bëri am na loo xamante ni sax duñ joxoñ tuuma président de la république mais rôle maire la maire yu ci bëree bëree bëri sàggan ba ndox mi dugg seen seen dëkkuwaay nangu lépp loolu boo ko gisee en tant que mbër moo xamante ni ñi lay supporter ñu ngi fu nekk noo koy. jiili man damay mal placé quoi xamul tax man man ki ma nekkal moo ma yàq. ñu war a saar man dama defe ni maire yëpp dañoo war a mel ni moom. moom bi muy nekk maire moo tax Gunaas jooy na maire. Gunaas gi wallaahi jooy na maire wala sax da doon ay junni junni xar di ko joxe te du woo benn site na ko na ko ñëwal ñëwal wane. wala sax toog naa mu joxe xaalisam ba li mu yor yoratul mu jël xaalis caama doom ji ndey caam quoi passage di ko nuyu di ko àbb pour jox nit ñi man gëm naa ni comptam denc fa xaalis loolu mooy maire. gunaas daraan taa ndox mu dugg ci pàcc pàcc yi li jënd seen problème ñëwaat toog dëkk ak ñoom ci pàcc pàcc yi loolu mooy maire mais léegi maire yi xamuñu roori oto bu rafet kër gu rafet xamuñu sax waa askan wi la ñuy dund. man nag du ci nekk di wax parce que euh, dama mal placé ko boobu duma ma politique mais daal maa ngi ñaanal yàlla ñi nekk ci mbënn mi sonn état bi gaaw taxawu leen parce que métti na añ ci ndox reer ci ndox dëkk ci ndox yor xale yu ndaw di defee lépp ci ndox. te dem di jël appartement bu quatre mille cent mille yoroo ko ndax amoo loo añee wallaahi métti na waaw man moom bu ma amoon dinaa ko def mais léeg-léeg ma xëy sax du ma ndékki waaw moom waaw day day day métti quoi mais nag état bi nañ leen gën a jàppale bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax. guy gi ñu gis ni am na loo xamante ni jotoon na xew géejawaay mais dafa mel ni yàlla suñu borom mu ngi ciy def ndox mu sedd guy gi mu ngi mu ngi retrouver woo digganteem ak ay magam. rawatina ki nga xamante ni kenn la woon ci moom muy Sa Kajoor àdduna bépp kontaan ñëpp euh, bég ci ànd bi nga xamante ni yàlla suñu borom defaat na ngeen ngeen àndaat ko ànd bi ci nan la commencé ak nan ngeen def ba yéen ñaar ku ci nekk retrouver waat sa moroom waaw jili Sa Kajoor Sa Kajoor malal malal malal yàgg na ko bëgg. Seex Kan yàgg na ko bëgg ak ay nit ñu baax ñu quoi. mais bu ñu ko yàggee bëgg te mag saa ko yor tey bëgguñu woon tey ànd duñu ànd mais dañoo dem ba xam ni dañoo dem ba xam ni su ma diggante ak moom amul lenn loo xam ni lu dul ñu nekk benn la moom bi mu feebaree xam nañ nga xam dañoo nekk ci moom di wax man tamit xam naa lool mais dama téewoon sama coin toog mais sama diggante moom dara amu ci ma mag la sama idole la su suma royukaay la suma lépp la ba ma nee moom la ba tey bàyyi ma ba ma ne moom la ba tey musuma toog fenn kenn mooy samay dool même donte dañoo am réeróo sax ma toog sama koye dinaa toog wax li may wax <laughs> barki déew ñuy waxtaan ma ak moom mais da xam ni kii man dama ko manqué woon. da xam ni kii man dama ko manqué woon loolu mooy àdduna lan mooy àdduna jabaram barki déew ñoo nekk fii man ak moom ma nuyu ko laaj ko doom yi mbala kenn dem loolu daf ma man loolu daf may daf may neex daf may neex saa suma kilifa la mais gëm naa ne nit ku ci duggaat bu soobee yàlla. di nga di nga ñëw wasaare ñu ñu ñu def sa photo façon waaw wow sa photo lañ ciy def de ne la na nangam. mais bari ñoo xamante ni ñu ngi ci doon wax actuellement xam na ni bu ñu tëddee du ñu nelaw ndax xam nañ ni guy geeg saaka joor dinañ waxante di début à la fin ndax du ngeen nëbbante. ji li man dama la bëgg ragal nag de lii daa mel bi ma koy wax fekk woo ko de am na ñoo xam ne ay comprimé la ñuy naan fi mu toll seen xol mi ngi gonflé wu. ñi ñi entraîné leen ñi entraîné hôpital ñoo feebar ñii seen bi dafa yaa ma gën a xam seen kër yi moo mujj yaatu nekk ay quatre-vingt ndax mënuñu supporter loolu waaw am na ñu ma jot ñu ma gëj a gis moom ñooñu moom ñu ngi hôpital moom ñooñu moom dañuy enterré waaw saa koyor moom su ma diggante ak moom li li nit ki naan su yàlla su ma bëggee na ma bàyyi diw yàlla bu ma bëggee na ma bàyyi ak saa ndeysaan nas damay jékki-jékki toog nas ne ma sawaay yow yaa ngi diggante sawaay woo ko sawaay julli gi nii julli gi dama doon jënd ay xar di joxe ma mënu ma bii ko jox saa koyor ma ne ko ay du ma ko yóbbu bu ma ko yóbboo mu ni jabar ji waa yow indi ko ay jaraay xam naa saako yooyu même ko nee saako yooyu barki yëpp dafa saa xam naa la saa yow da ngay defante mën naa yóbbu xar bi nga ne mën na xar bi génn <laughs> mais maa ngi moom yooyu bu ñu wax téléphone da kii guy gi da koo manqué woon da tellement day génne day génne saako yooyu day génne kontaan ree indi la yoo xam ne ay détails jili jili naa def benn émission à part loolu à part la uniquement man ak yow ak saako yooyu fi ñu jaar barke alxuraan su ma ko sama sama xol day tooy sa xam saako yooyu bu baax amul xolu ki ñaan Sakayor lu mu am nit ñi la ko bokkal. weer ci bi am na ñoo xam dañ doon jël arme Sakayor guerre. ngir ngir ngir rek mettital ma mais xam na lépp. xam na lépp di ko jël arme ngir mettital day gis benn booy xam sax bëgg ko sax mais naan man Sakayor lii ma mais gis biñ gise ma mu ñu am amitié mu bàyyi ko gëmmuñu li ñuy def. bu <laughs> nekk loo xamante ni ànd bi yàlla na yàlla bu ci seytaane am yoon. yàlla na doon loo xamante ne day continuer surtout ñi nga xamante ni tey dañuy ànd ak mbër yi ñoom dañu war a xam ne defar rek moo leen war ñu moytu di diw moo wax li diw moo wax li ndax sëñ Abdoulaye Mbacke da daan wax naan lu waay fen ba am ko soo waxoon dëgg am lu ko kon ànd ak guy gi bu mu tax nga yàq keneen ndax tey àdduna dara ci àdduna yàggul te lépp mën naa jeex guy gi tey barki dem ñu gis sa frère Lac de Guiers di ngénte nga déplacé wu nekk ci komba donte mënoon ngaa toog ndax ngant la nga déplacé wu dem assister ko jàppale ko mbalak ko fa kaañoo ko ci seen diggante yéen ñaar. moo Lac de Guiers 2 Balla Gaye Sa Thiès Sa ñun ñëpp benn lañ Eltono ñun ñëpp benn lañ. gis nga tey jii bu ma fekkoon kër Balla Gaye de da nga naan non ñaar ñi kay du ñaar ñii la ñu wax. Lac de image moom du fenn lu ne laa ko yàq. lu ne Lac de Guiers 2 benn archive anecdote sax du anecdote jox naa fi takkam te takkul jabar loolu moom it lu ne la ma ci yegg keroog la mës a dégg la dégg saaga ndax Bécaye <laughs> Mbaye dañoo xëy ñoom ñëpp kenn ku ne naan takk ki kañ la kër gi fees dell riiti riiti mbokkam yooyu riiti riiti yi joolee ñëw yee laa da oh. laa da ngeen wuloo la la gaare ko takk gi takk gi tax ñëw de woo ma téléphone allo billaahi barki sëñ Babacar Si yow dafa nang rek dinaa wax sama fan si ngay yow bu ma paree ci yow ma xam ne saa yi mer nag ma ne ko booy ma ne ko da ngaa war a takk oh. di nga takk ci lii wala ci naa mais loolu baax na ci. deux jours trois jours mu dem jàpp ah, li ma ko defoon laay def Alioune Seye. Alioune Seye de. rek <laughs> eh. loolu force la ñoom ñëppay takk. actuellement lamb eh. fi mu tol nii ñëpp ñu ngi namoon sa combat yàgg rek rek actuellement daa mel ni date bi ñu leen joxoon xam na ni mënatoo leen cee bëre. ak përëm léegi mu ñëw date boobu kay yàqu na boobu kay mais nag sant yàlla na pandémie bi jóge rek jili jili na pandémie bi jóge rek. pandémie bi moom bu soobee yàlla incha allahu rabbi saison novembre. dama bëggoon bu ñu wax ci rëg-rëg fekk maa ngi ci suuru combat bi su may wax di tàpp taabal ji di di bàggante nga may gis di ñàq di siit nga xam ni kii am na xaar déggoo ma de mais nii nañ wax li pandémie bi jóge fi rek nuyoo sant ñi ma gëj a dégg comme koy musoo maa ji la ba mu saal teg quatre cent cinquante kilos teg ko di puus nga ñëw ñu waxtaan nga ne ah guy gi mi ci combat boobaa loo bëgg mën naa la ko jox. loo doon liggéey États-Unis parce que gis nañ say photo yoo xamante ni génn na ci net bi vraiment guy gi bi ñu gis wax dëgg liggéey na am na doole am na. may sol loolu moo tax may sol kii may sol jàllaabi bi quoi. non pas nëbb forme mais sama miskil xam naa sama bopp. sama miskil laa indiwaat teg ko sama miskil rek laa indiwaat teg ko li mu nekk ci man di nelaw ma yee ko te loolu bu ma ko indi rek rek taxaw. billaahi ak saako yor mu jubeel jubóol nii am na problème rek dafa ñàkk sens xam nga man nañ dafa ñàkk sens bi ma ne saako yor alu mu ma alu mu ne ma mbër yaa ngi ma na waaw mu ma à suivre. kon am na njariñ ci combat bi. ma yow ma ji la ay émission bi day dagg de. la ci kooku day taxaw ne la dafa nangam nga def ko daan kooku mooy bëre. Hmm. kooku mooy bëre. mës na laa wax ci benn combat boo xamante ne da xam ni combat bi guy gi ci dara. moo bëree combat le 2012 moo ko bëree moog Malal. Malal mii toog tey sama combat Ama Baldé 2012 moo ko bëree. lu garaaw nag laa lay wax. ñu ne la lan. non loolu secret la mais. combat bi jàll na ngeen wéet. saa ko wax la loo xamante ne ci combat bi ba nga demee loolu nga indi. te loolu mbër mu ma mënuma mbër mu ñett yoon mënuma billaahi ma suul sama ndey li gaay suul li amul. mun ma li ngay man contact li nga bëreeg man contact bëri koog bëri koog euh, ama bu bu ci changé dara. man waaw ah, munuma bu ci changé dara gis nga fi nga ma àgg noonu fi nga ma àgg noonu noonu noonu defal nangam ak nangam loxo bi bu dugalee génnal ràccal say tànk loxo bi fexel mu jàppee nii yéex na jàppee nii rek yow bu tourné jàppeel nii fii ba suba bu jël sa tànk bi du ci man dara te barka alxuraan nii la ma ko waxee nii laa ko daanee. parce que maam moom dañ naan contact bi école bi jug taxaw école bi jug taxaw. parce que daan na ma tël di ma tël di ma tël di ma gi di ma tël ba gi mënatumaa tël mujj daan mujj gi man ak moom la école bi di xaar guy gi saako yor takk na ngemb. déggoo li ma la wax moo tax combat. sama école ma la du ma bàyyi ma fen am na ay années yoo xam ne da ngay dagg billet doo ko seetaan barke Seexul Tijaan da ngay dagg billet doo guy gi dugg si na saako yor dugg si na saako yor xëppoo suuf yi takk caq bi dëngal billaay amatul. nga xam ñi ci dàq bëree lekk ñu ci xaalis. amatul laa la wax nii saako yor taxul suuf war naa contact ba mu ni nii jox ngemb li jugal loxom ci suuf ngemb li mooy saay yow kooku bëretul kooku kooku su ci moom sax sama xol day tooy. guy gi moom lañ gisaat guy gi 2021 macha allah mais guy gi 2012 ba dafa am guy gi 2021 lu yokk ci 2012. li yokk ci mooy nee dama émilé non loolu yow xool loo sax xam nañu x x jàpp na ni moom du la sax song parce que ñëpp nee nañ mënul xeex te dalay doon dóor nga waaj. xool x x bi laa lay jox nii rek nañ bàyyi ba après yow jiil yow loolu du ay détails du ay détails man États-Unis dama woon pour liggéey am doole de. dem na États-Unis yow dem am doole de. man macha allah tous de bois. lii du bois de li kaw la tous de ana ana bant bois. tous de bois baal jox ma bois waaye tous de ah, ah. waaw tous yaa ngi dégg dama woon pour am doole. am naa doole ba pare dama demoon rek pour xam ni dangay ngay dóor mën a moytu pour dóor mu wàcc rek jàng loolu laa jàngi xeex parce que neen damay dóor mu wàcc man ma dem jàngi xeex. léegi ku gën a ci ci ci kii ci làmb ji ñun ñaar yàlla na yàlla may ndam. <laughs> loolu kay leer na. <laughs> ku gën a diis loxo ci làmb ji nga dóor mu dal yàlla yàlla may ndam ah, de leer leer ba yëkkati woon oto ba taxi ba. taxi ba non boobu sax xale la boobu repas yi ñëwagul. boobu lekk guma hamburger huit hamburger yeeg. boobu naanu guma persia bi. te yaa gis léegi Balla ñaar séeréer maam jàll bi mu ñaari persia la teeroo ma dóor benn bi këram ko benn bi. xar mu ndaw la ma defal fi ndool bu ñu defee kii ba pare dama koy jox ma këlam ci kooku déggoo ma de léegi sant yàlla ah caama bu njëkk da ngay ñëw mu la nangam nangam léegi caama ay boole la rappaay bu njëkk bool la mais léegi caama doom war a saar bi ay bool la indi léegi moom daa raakaaju daa daa raak ay booli. kër googu kër googu nu ma def ñoo ma ko def nu ma mel ñoo ma ko def kër war a saar nu ma mel ñoo ma ko def su ma demee tey ba nit ñi di bëgg ma di ma xëccoo song ma grâce à Wara Sarr. léegi da ngaa yu bari mais combat bi damaa gis bëgg bu ci guy gi di wane saa su ne ngay wane ni da bëgg combat bi saa sune ngay wane ni adversaire bi dafa mel ni dalaa xeeb daa am loo ko naral. ñi may àndal ñi may àndal ñii sama bëgg combat fi nga xamee ci man fi nga xamee ci man su ma yéegee ci kaw di këlëmtikoo samay weñ këlëmtikoo rek. waaw dama koy këlëmtikoo ci kaw dama am saal boo xam dama koy këlëmtikoo. dama fay teg loo xam ne kenn du ko yëkkati. ma ñëw ci def ci di ko fay ak moom fay ak moom fay moom fay ak moom. booy bi yëg doo ko yëkkati mag mi yëg doo ko yëkkati malal mi moo doon yëkkati daa daa daa malal waaw nii déggu ma sànq sa baraay daa daa dogoon. <laughs> tukki tukki entraîné. baax na ci yee bien expérience bi. récupéré bi. dall bi. tey fii boo fi nekkee malal day ñëw ne eh nañ dem entraînement. eh nangam doo nelaw fee koo bëggul mu yéela du yee. liggéey tëdd nelaw heure sa téléphone sa coach moo lay woo heure bi ngay def sa sa réveil sa xaalis ngay fay su dépassé lijjantiwu la ay heure la seq ak yow force moo la fa yóbbu dem antenne loolu rek la ak seen loolu rek la du leneen loolu rek la jiili professionnel bi day gën a yokk nag niveau bi waaw high level ngay nekk boo nekkoon nii da nga nekk benn high level bu mag. jërëjëf Guèye bu baax xam naa ni da ngaa nekk ci yoon. waaye téye naa la vraiment ma lay jaajëfal bu baax ci sa disponibilité. waaw non yow mënu ma laa bañ a jël parce que bi nga ma woo expliqué moom mosoo maa jël ma la noo jili loolu moom ñaaw na ci sama image yow ngay nekk ndaw nekk ci site duma la nga jël ma ci laa la ne calel rendez mais mais yow comme ni nga ko wax sax xam nga dama nekk ci yoon nii mais dama ne nañ def excuse bu ndaw rek su ma nee ba ñëw nag ñu yaa ma gën a xam xam nga nekkaat ci waaw nuyu naa ñëpp nuyu axlu làmb nuyu comme sama famille comme li ma la ko waxee rek bàyyi ma kenn waa États-Unis Abdou Medina Laa Ndiaye Yaamu Ndiaye Ndoye Thiouz xam nga Modou Mamour Sène Bo sama kosu maa koy nuyu bu baax Racit maa ngi koy nuyu ñoom Boos ñaa restaurant bi yëpp xam nga waa ñoom waa Jacob bi yëpp maa leen nuyu bàyyi ma kenn xam nga nuyu xam nga bala ñaa suma xarit daal ah, Seydou Mame Diarra xam nga Vale VIP ah maa koy nuyu nuyu sama intermédiaire bi seex Gueye ndeysaan moo ma booleeg euh, Cheikh moo ma booleeg euh, Sila Sila borom borom naa TV ndeysaan série Nabou Diagne muy ku baax billaahi sunu Sila moomu. waaw parce que tamit comme lima ma la rek dinaa la booleeg moom sax mu xët la mooy maire Yoff non dina la xët. man mi dem bi ma xëtee siggee ba tey. xëtee dootu ma xëtee. déggoo li ba tey siggee gu ma fi mën. Ah, dégg ñu xam si mën en tout cas daal li ñu lay wax mooy te bu ñëwaatee bu toogaatee ji yow di xam ne maa ngi ci. te bëgg naa combat maaw na gaaw jàpp dar rek parce que na namu nañ combat guy gi guy gi rek. bëgg naa combat bi. premier janvier. waaw. président bi neex na mais xam nga ji li problème bi. bu ñu toppee di wax ak mbas mi ñi ci kii bi mbas mi. moom dem na ba pare novembre ko fi bàyyi. waaw man bu demoon nag. ci lay gën a nekk ci combat parce que jiili parce que jili jili imagine ñuy dee ci mbas mi est-ce koy seetlu ku ci amul mbokk dem nga mbokk dem na ci wala sa xarit kum xam dem na ci kon ñun buñ jul tiit suñu xel bu dul dem ci ñooñu rek duñ nit moo tax du ma bëgg wax ci combat fi mu toll nii benn xeex rek laa muy pandémie bi rus na entraîné sax ni dama gis rus naa entraîné wallaahi ni dama gis wala mu rus wax ci leneen loo xam ne sama ji li ma ñàkk sama combat mënu ma ko wax mais ruus naa toog naa ne ma ñàkk sama combat ak nangam pour pandémie bi nii mais na dem bis bu demee rek ci jàmm sunu borom a ko fi indi ndaw sunu borom la moom rek moo ko mën a yóbbu yàlla na ko yóbbu ci jàmm salaam ñu ñëwaat nekk ci li ñu war a nekk te li ma la mën a waatal ni mooy jili bis bu affaire bi demee ñu nekk suñu bopp soo fekkaatee fii lañ koy defaatee buñ toogee buñ toogee yow boo génnee da ngeen ni guy gi mi ci combat bi. te bu combat bi desee une semaine dina wax ci ay tegtal yu garaaw waxuma nag nu ma koy daanee. parce que nda bokkaale wu ma de ndam fa mu nekk sunu borom moo ko moom xaw ma luy am suba na leer xaw ma ndam fu mu nekk su ma ko xamoon du ma entraîné ji mais dinaa le bu ma ko téye du bousee dina le bu jaaree fii ma ma ma ma humilier ko te buñ jàppante ma jàpp benn loxo yëkkati ba benn loxo supporter ne leen jug leen benn loxo laay bëreeg moom jàpp benn loxo yëkkati benn loxo supporter ne jug leen loolu moom moo lay entraîné chaque jour te dama koy def bu sooba yàlla incha allah bu neexee yàlla. xam nga dañ def dañ dafa am doole dafa am gàllaaj dafa mën a xeex moo fi të maa ay ci ñi fi ay ci ñi fi déggoo li ma la de dama la jox rek ñaari combat yi ndaw mook Siteu bu ñu doon bëre cinq combat bu ko daanee benn du ko daanaat kaat lu wóor laa lay wax nag waa Siteu ñi ngi may dégg moom ay nitam ñi ngi may dégg bu dee waa gi nañu xool ñoom ñaar ñuy contact wala seen entraînement. Siteu champion de fi mu àgg mbër bala nga xam ne champion mu àgg fa mbër. benn dama ko teg à côté ñëw ma nag du champion moo tax ma waxee noonu. Ama Baldé bi muy rafaay loolu def une deux ku ko dékku une seconde wala deux secondes ndaanaan nga. attaque gu Ama Baldé ku ku ko dékku une seconde rek laa wax de waxuma la deux secondes de ndaanaan nga. il est meilleur pour l'attaque nees ku dëkk attaque am noonu mu mel ni di ñëw ndaanaan nga. foofu rek laa lay ñamal <laughs> ba après quoi. <laughs> kon de wax dëgg la euh, rey ñay euh, xaw ma lakk ñay yomb la waaye wëlbati baa jafe. billaahi sën sën ku fi ku ku ku ruux ku sën poussière baa lay rey. déggoo ma de damay nelaw damay nelaw mu ruux ma damaa ruux damaa ruux. saa yi jugul ko te di saa loolu loolu. xam nga jox. yow sax nañ baay bu seet rek ñu ngi ci de ñu ci de. maa ngi lay jaajëfal bu baax kontaan vraiment yow it di yàlla yàlla musal ci accident làmmañ parce que accident làmmañ bu machine bu accident làmmañ ma ko yées bu bu accident làmmañ bi defee accident jëmm jaay sorox yow yàlla bu mu la dal yàlla na la ca topp mais bu la jàpp yow nit ku baax nga dañ lay mais dama koy teg ci yoon sutu yaag per Birame Ndiaye bi ngeen doon def dama koy suivre mais commentaire yëpp benn kii lay am loolu nag yàlla na yokk site yi nga nekk yàlla nga dem ba yor sa sa télé bopp waxuma la site de yàlla mën a ko yàlla na yàlla def gëm-gëm baa ngi fi xam-xam baa ngi fi te nit ñi bëgg nañ la yàlla boo gis succès sa li ngay def bu ko gis mu ko ni nga war defal gis naa la des fois di nga seq ñoo xam ni tey vraiment dañ naan sax est-ce nga mbalak fii surtout borom moto bi sonal nga ko borom moto borom moto sonal nga ko mais dafa am solo wàcce sa bopp judd loolu loolu dafa ba man ci laay téye nit yaa am na nu ma doon gisee nga mel ko rek boo ne ma guy gi damay ñëw doo ma dégg de waaw loolu laay jàppee nit di la ñaanal lu bon sa grand frère la kon di la yàlla rek fi ñu jaar nga jaar fa ñun teewul lu ñuy def day saf nit ñi mais bu arbitre sifflé <laughs> loolu lépp fàtte nañ ko <laughs> kontaan naa ji lii. kañ nga fas yéene takk ñaareel non jamais de la vie. moi j'ai marié moi j'ai droit marier quatre femmes mais pour l'instant nii moom. non c'est que c'est que xam nga bébé bi sama doom la. suma doom la. te euh, tey xale la. xam nga nit tey da ngay bàyyi sax ba xelam dal. xelam dalee ba xel dal. après léegi yooyu ay waxtaan la. mais du nuyu wa tamit waa CFA bu baax ku ci mel Ndeye Khady ñoom busa jang ñoom Seynabou Dieng sama goro biti noonu laa koy waxee ak euh, euh, waa CFA gi yëpp daay nday xari borom yaa faatu ji ndeysaan xale la xale la mi ngi góorgóor mi ngi ci entreprise boo xam ne vraiment loolu moom da nga ma koy dugalal ji publicité la mais da nga ma koy may borom yaa faatu ji sama xarit la muy Ndeye Khady ndeysaan day nekk koo xam ne xam nga bi mu ko yagul yàggul mais euh, sant la daal sant la parce que nee nañ ko yow boo melu ni tooñ parce que sa yaay liggéey rek la xamoon borom yaa faat zi ñu ngi lay nuyu bu baax yaag say rak ñoom xaarim jàng xam nga vraiment yaay bi fi génn àdduna dafa boole xale yëpp uuf leen moog yaayam jooju biti xale yi jooytuñu yaay ngir biteeg euh, Ndeye xadi quoi te loolu la ñuy loolu la ñuy ci yoo xam ne porteur de voix nga di nuyu seen mak ngoone à Paris nuyu ñëpp daal ji li kontaan nañ bàyyiwuñ kenn jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb gis ngeen guy gi lañ dalaloon mu nekk ndaanan boo xamante ni vraiment bu waxee rek da ngay xam ni nitu dëgg moo wax bu waxee rek da ngay gis que ni kii li muy wax ci xolam la ko jëlee mu nekk mbër moo xamante ni vraiment champion la ndaanaan la ci làmb ñu koy ñaanal rek lépp loo xamante ni bëgg na ko ci làmb yàlla defal ko ci lu kawe njortam ndax yaakaar naa ne bi muy dugg si ci làmb ak fi mu toll ci làmb ñu bari jàppoon nañ ni làmb jom ak fulla ak fayda rek moo koy maye te guy gi mu ngi ci ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax di kontaan bu baax ci aadama mi nga xamante ni moom laa àndaloon mbokki di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb ak beneen daanaan jërë ngeen jëf